Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu leen di siyaar yéen waa Dakar Actu nuyu yi ak internet yëpp di leen dalal jàmm fii ci janatul maxwa waaw magal gi nag xam naa ni wàccaay moom fi ñu toll nii moom ni weesu nañ ko ndax màggal gi jàpp naa ni kuy am murit ku ne bu ñu ba ci suba si rek ci nga war a sóobuwaat nag ngir kon jàpp naa ni moment bii nu toll moom euh, lépp jàppandi mat nasik. ba fi ñu toll nii suba rek ci des incha allah bu soobee Serigne Touba ñu fas yéene nag sant la yàlla Serigne Touba li ci waroon lépp nag mel na ni yàlla ci ndimbalam jàppandil na ko ba ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax. mooy ñi nga xam ne dañoo xamul sëñ Touba sëñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am te Cheikh Béthio moom jàpp naa ne lu waay ñàkk xam ñàkk xam xam ne lii mu am sëriñ Touba ko ko defal ki ko ko defal nag moom moo dul jeexal. ndax sëriñ tubaa ci mbirum nit bu ñu doon wax mel na ni gisatuñ ko ci suñuy bët te tey la dooleem gën a yokk loolu lu ko yàlla defal la kon képp koo xam ne dangaa bokk ci moom rawatina nag di jëfe ndigalam muy màggal gii nga xamante ni nee na lu ci waay mën na ko def li ko dalee ci ginaar ba ci gileem képp ku ko def loo defoon daaw ren bu dewee da nga koy da ngay def lu ko ëpp looloo waral yokk tey saa su ne lépp luñ ci defoon bu at ma ca topp ñëwee ñu def lu ko raw loolu mooy wane ne yàlla li mu wax ci alxuraan ne la in shakartum la azidannakum giiñ na moom yàlla ne ku sant giñ na ni dina la da dolli moo waral saa yu ñu ko santee su at ma ca topp ñëwaatee ñu yokk waaw loolu noonu la demee si ay yokkute rek la. Euh, loolu moom xanaa di ci sant bu baax a baax ndax ndigal li da koo jël teg ko ci loxo sëñ Saal mu ànd ko ak cantaak ko ñu topp ci ginnaawam yëpp euh, te foofu barab bi nekk muy Matlabul ni xam naa ne histoire bi sax dadul xaj ma mën la koo leeralal fii waaw waaye foofu sëriñ Touba nettali nañ ñu ne fa la toogoon di bind xasida ak Matlabul Fawzayni bi muy bind xasida ak Matlabul Fawzayni mu mel ni dafa am gaynde goo xam ne daa dàq benn njaay àll njaay àll gi di daw ñëw fekk sëriñ bi di bind xasida ak Matlabul ni mu mel ni lu ñëw di làqatu ci kaw sëriñ bi ñëw ba ci sëriñ bi jël ñaari gàcc ñaari tànk yi gàcc ko ci kaw sëriñ bi gaynde gi ko doon topp bi mu demee ba def loolu gaynde gi daa taxaw di ko seet di ko xool nee na ñu taxaw di xoolante akub diir ñu jekk ba ci ak gaynde gi wane ginnaaw jël beneen yoon njaay àll mi jël beneen yoon te saa Saliou nettali na Cheikh Béthio nee na ko te li ci doy waar li loolu di am lépp lépp fi Serigne bi tolloon di bind xasida ak Matlabul Fawzayni bi ko njaay àll mi di teg tànk yi mënoo xàmmee fii ne fii la ko fii lañ ko tegee tànk wala dara amul dara lum ci raf lu soppiku ci ci ci mbind mi foofu nag mooy barab bi nga xam ne jàpp naa ne Touba bu doon bu doon nit dama nan la fofu moy xol bi ah, yalla def nak ci tawféexu ndimbal Serigne Touba Serigne Cheikh mi nga xam moy khalifa Serigne saliw jox ko Serigne saliw ndigal mu and ko ak tianta ko ñu top ci ginaam yëpp ñu jëf ko ah, Serigne Cheikh wax ko kaddu yu rafet yi mu ko wax demb lool nak di sagu mourid yëpp nak di sagu julit yëpp di lo xamni nak ab tambali la ndax ligel Serigne Touba mom amul wacc lo dor mu daanu rek da ngay daal di jàll ci lenen ba tax na fiñ tol ni mom mi ngi togaat ak ñun ñëpp rek di xaar lenen ndigal lu ñëw rek ñu and ko ak mom waaw. ko xamni dafa am ndimbal ndax sëriñ Saaliw moo ko wax ne ko dafa daan def bu màggal mësaan a jot mu togg ay ndab yu bari fii xam naa vidéo yi boo ko xoolee ci internet di ngeen ko gis nga xam ne gaañ dañ daan ranwee fii yenu yenu bool yi daanaka dañuy dem ba mel ni ku lu jege jumaa ci ci ay nit bu ñu demee siyaare ko sëriñ bi teg ko fa sëriñ Saaliw ne ko nag lii ngay def sax lu ma neex la te baax waaye su ma sañoon da koy yóbbu ci sancaan yi mooy village environnant yi nga xamante ni moo ne ci wetu dëkk bi ne ko ndax sëriñ Touba bi mu wootee màggal gi bimu wote ak Touba amna ño xamanteni bëgg ko ak sopp ko da tax ñu ñëw ci dëkk bi donte sax seen doole mayu len ko waye dañu ñëw ma bëgg nak bu magal gi jotee ñukoy yek ñu ci yek seen bop motax li nga fi indi su ma sañon dang koy yobbu ci santiane togal len ko fu lolo waral santiane yi nga gis ñukoy samp dem fa di togg di len ko jox ndax mom magal gi japp na ni Serigne Touba da ko ci da ko ci may ab cër ndax mom bu mom magal gi bu mu saan jot du du du nelaw sëñ Béthio nee na dem na ba neena na màggalu tubaa nee na euh, nee na nee na jaaykatu ngooñ yi sax dañoo war a yëg ni màggal gi ñëw na. am na bis jot ay taalibe ñëw di ko wax naan ko moom kat dañoo buggoon ci biir dëkk bi janatul maxwaa ñu ut ay ay yoo xamante ne dañ ciy def ay ay indication di wane ni fii lañ dëkk ak dal bii fii la nekk ak daara ji fii la ñu dal mu ne charme màggalu sëriñ tubaa gi da cee bokk di réer nee na màggal gi. da cee bokk di ñëw di laajte sa dal te doo xam fan la pour wax la rek moom màggal gi bu musaan a jot ni mu koy ni mu koy faa ni mu koy jëlee à cœur ni mu ciy sóoboo ni mu ciy nekkee kon moom moom duñ def rek loolu topp ci ginnaaw tànk yi mu nekkoon rek te di ci góorgóorlu donte sax jàpp naa ni moom fi mu ajoon baar bi ak ndax li mu ci xam lañu dul xam waaye rek ñu jéem a góorgóorlu topp ci topp ci topp ci loolu